précisément monsieur le président de la république euh, euh, juróom benn weer ci gannaaw euh, wala ëpp na ko sax jëloon dogal ni que ki nga xam ne nommé na ko ministre te mu nekk biir Thiès muy Thierno Alassane Sall pour mu coordonner biir Thiès coordonner nag mooy ànd ak ñëpp mais nag il faut mu am ko oote pour que nit ñi toog pour mën a waxtaan loolu moo tax mu nommé donc Thierno comme coordonnateur de la ville loolu nag. man d'accord naa ci 100 pour cent parce que ñëpp xam nañu ni président bu xesee wax Augustin du may wax euh, jaaral fii wala fële donc d'accord naa ci 100 pour cent parce que wër na ma ni décision boobu mooy décision bi nga xam ni moo gën parce que moom moo ko nommé ministre te képp koo nommé ministre c'est cest dire que da ko wóolu te gëm naa ni mën na liggéey bi l'essentiel c'est que nag ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi foofu ñu ànd ak moom tous les responsables de Thiès ñun xam nañu leen tous les responsables ñoo xam ni liggéey nañu ci parti bi. du ma ci cité mais ñoom ñëpp liggéey nañu vraiment pour que partie bi jëm kanam président xeebu ci kenn te am naa yaakaar ni dina recevoir ñëpp waxtaan ak ñoom pour que li nga xam ni bëgg na ko ci biir Sénégal maanaam émergence su Sénégal donc secteur yi bare na euh, le ministère noo euh, yore ci aussi secteur bu am solo te gis ngeen ni euh, ci gannaaw tuuti méttiwoon na temps bu calculer année mille 2011 mais am naa yaakaar ni léegi am na ay jéego yu mag yu ñu def ci mbirum électricité te yàlla def na doomu cees moo nekk ci boppu énergie kooku bon dañ ko ci war a jàppale pour aussi mu nekk à l'aise pour mën a liggéey liggéey bi bu baax a baax liggéey bi nga xam ni jox nañu ko donc président inauguré na bokkal l'autre jour muy 20 mégawatts euh, inauguré na beneen 20 mégawat euh, Malicounda yaakaar naa problème énergie effort yi ñu ci def jéego yu ñu ci def euh, mën nañ am yaakaar ni fekk fii ci lu ak lu yàggul 60 pour cent yi sax dinañu ko passé yi nga xam ni moom la ñu euh, moom la ñu bëggoon donc pour wax ni waa Thiès bu fekkente ni dañoo bëgg jàppale président de la république ci objectif bi mu am ci émergence euh, donc Sénégal war na ñu nangu dogal boobu mais ñu ànd ci ñun ñëpp ñun ñëpp waa ñoom ñëpp responsable ya fa nekk ñu ànd waxtaan ba. am benn jëmuwaay mooy fexe ba ñu gagné élection législative yi ak la prochaine présidentielle maa ngi leen di gërëm leen